quelques mots bon Bachir euh, non il nous a vu grandir nous avons vu ñuy ancienne maison ba euh, le triangle sud donc son papa la sunu càmmiñ la nous xarit la euh, am ñu luñ koy lu koy ñaanal que rek ko nous ndax ñun nañu tette nañu bu ñu mësaan juum rek mu teg ñu si ñoon donc loolu moo tax tey xol yi dañoo fees waaye nag yal na ko yàlla xare àjjana te yàlla fay ko xolam. kon daal ku waaw kaa ku baax ku rëy kay parce que ñun ñëpp tette nañu. ku juum rek mu teg la si yoon. waaw man mi si bokk ku juum rek mu teg la si yoon. waaw am na solo jàngal nañu te xamal nañ ñu àdduna ba ni ñu décroché ñoom itam ñun itam donc dañ koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana Fanta Fifi Kanté. Merci de vous abonner à Pikini Productions. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.